bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaam yàlla bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi àdduna asalaamaaleykum saa su ne bu ngeen ñu gisee ñu jug rek am na lu tax ñu jugaat bu ne jugaat lu tax ñu ne faj sa jàngoro li nga xamante ni mu di kàddu askan bi ci biir Sénégal tey jii ñu aman mbégte tey ñu seet si ki nga xamante ni mu di grand Meissa la grand marabu tey ji si kattanu suñu borom mu tombeek weer bi nga xamante ni weer bi gën la ci weer yi tey yaa suñu borom dogal ne tey ñu am loo xamante ni tey dañ koo seet si waat mais tey man damaa tiit li tax ma tiit mooy damaa ñëw fekkaat ko tey mu toog mu mel noo xamante ni mosuma ko fekk tey mu mel noonu bara boobu noonu nag dañ koy bàyyi mu nuyoo grand Meissa gannaaw boobu dañ bàyyi nga nuyoo ak mbokk Sénégal ak mbokk àdduna yi nga xamante ni ñu ngi seetaan fii nga xamante ni moo di jàmm mi fii li nga xamante ni mooy jàmm Sénégal. salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp ak waa maa ngi fi tey maa ngi nuyu waa Sénégal yi. <laughs> alhamdulilah gannaaw bi nga nuyoo grand Meissa tey Meissa tey ñu fekk la fi tey dafa am neneen noo mel tey fii nii dañ fi daan ñoo fekk fi leneen mais tey dafa am beneen affaire bu bees tàkk bu ñu fi fekk Meissa tey secret bi nga xamante ni tey fekk nañ ko tey jii ci yow ak jàmmi réew mi tey Meissa secret tey lan nga ñuy wax tey jii tey ci biir réew mi ak senegal maa ne salaamaaleykum encore. Mhm. danga xam ni ñu ngi dugal ci koor. Mhm. tey moo nekk lu ñu. Mhm. avril. deux vingt trois. deux xam àdduna. loolu tax ma ne. chaque yaa ngi ma def surprise. parce que lu tax. dëgg la. ma chaque jour. maa ngi def ñaan sama bopp. avant nga ñaan pour nit il faut que ñaan sa bopp moo gën am solo avant ñaan pour nit ba yaa xam tey bu mel nii Seydina Ali dafa def xeex pour yàlla jour bu mel ni daal ah jour bu waaw ci weti koor ndeysaan le dix-sept yàlla dafa ko jox ndam. Mhm. ci wetu bu mel nii. wallaahu akbar. yàlla def tam nga ñëw takk matu ci moment boobu. Mhm. ma ngi yàlla yàlla jox ndam Sénégalais. amiin ma ngi ñaan yàlla maa ne doon seen na Ali dafa am ndam. Mhm. ci koor le ma ngi ñaan yàlla yàlla def Sénégal dina am ndam ci koor boobu. macha allah gannaaw gannaaw bi nga nuyoo gannaaw bi nga taxawee wax loolu. Grand sax tey ci weeru koor lañ la fekk. weeru koor tey la huit tey ñu fekk la tey ji sa biir kër fii mais tey bi ñu fi ñëwee tey dañoo ñëw fekk tey sa kanam gi am neneen noo xam ne da koo mel tey ku la xool ak ni nga toogee day mel ni maysa bi ñu fi fekkoon ak maysa bi nekkul benn maysa secret yi lan la. bon secret yëpp benn la. Mhm. ñaan rek. Mhm. ñaan nga woy nga ñaan ci sa yaay nga ñaan ci a pap nga ñaan sa bopp ndax mu ñaan du benn nit rek moo ko moom ñaan yëpp moo ko moom parce que àdduna kon nekk rek nga def ci kaw nga ñaan na nga nekk pour ñaan rek ñaan mu am solo soo nekk sëriñ nga ñaan soo nekk sëriñ gannaaw loolu tey bu ñu génnee tey ji ci phase boobu tey ñu ci yeneen phase tey bu ñu yeneen paas tey mooy am na loo xamante ni instant yi mu ngi lëmbi réew mi ci côté Ousmane Sonko ci côté de Macky Sall ci côté de Sénégal ak côté bi nga xamante ni tey jii mooy euh, Ousmane Sonko am na ko ak keneen problème ba kooku jëloon ko tey jii yépp ko tey jii ci yoon tey ji lan nga gis tey jii ci Ousmane Sonko tey jii ci biir Sénégal. bon Allah akbar wax ko ci français ñu dégg. après ok. Mhm. Mhm. tu sais, les jours que tu es quitté ici, mm -hmm. je t'avais dit, mon frère, mm -hmm. dans trois mois, tous les peuples là, mm -hmm. ils vont sentir. Dans trois mois, tout le pays va sentir. Va sentir oui. Quel problème jour boobu da nga jóge fii. Mhm. da nga def émission. ma ne la. grand. waaw dans trois mois. waaw dëkk yëpp dina tàll. waaw waxoon nga ko fii mu leer nañu. waxoon nga ko. boobaa boobu affaire Ousmane Sonko ñëwul. ñëwagul woon. boobaa boobu affaire Macky Sall ñëwul. ñëwagul. ma ne dans trois mois. Mhm. dëkk bi yëpp dinaa tànk. te dëkk bi tàng na. waaw ma ne dans trois mois. Mhm. nga xool ci internet. Mhm. gars yi dinaa jàpp sàcc lu bare. allahu akbar ko sàcc dinaa def lu bare. allahu akbar. ma ne dans trois mois. nga gis gars yi dinaa jàpp jaaykat ay borom. dëgg la. si donc soo gis ci internet. loolu mi ngi def. ma ne dans trois mois. Mm-hmm. na jigéen dina moytu boppam. Mm-hmm. góor moytu boppam. Mm-hmm. ma ne dans trois mois. soo jigéen la. wallaahi dans trois mois. soo gis jigéen dafa am pro eh, nit dafa am problème. jigéen la. parce que année bi année jigéen moo ko moom. allahu akbar. wax na ko lu leer. boobu mooy bi nga ko doon wax loolu da ko wax teguñ ci semaine problème bi commencé ñëw. problème yooyu noonu bi ko gisee am nga ay sarax yoo xam ne jotoon nga koo digle am na ñu ko def am na ñoo xamante ni xamaguñ woon nuñ doon def tey ji ba def loolu mais tey may sa yàlla suñu borom may la xam boo xamante ni yow tey da ngay toog fi nga toog xam-xam bi di la wuy si may sa si biir xam-xamam tey ji problème yi nga xamante ji am na biir Sénégal tey sarax yi nga xamante ni tey mooy tax problème yooyu te mën a deñ tey may sa yan sarax tey ji lay digle pour population Sénégal ak borom kër tey ji di ko def. soo uh-huh. wax tarak année rek tarak année la. sanax la. waaw soo wax benn année tarak boobu rek dina continuer. boobu rek mooy continuer. waaw waaw sama xam-xam. allahu akbar. soo bu génnee sarak tam. Uh-huh. nga sa bopp. Uh-huh. yaa ngi comprendre. bu baax soo mënul ñaan tam nga mooy ci sa bopp. allahu akbar ma ne encore ma ne année bi moom. année bi ba léegi année jigéen ñi ñoo ko moom. moom. soo gis jigéen soo gis nit dafa am tuuru la. allah akubar dafa am problème jigéen la. allah akubar. est-ce que internet bi wax naa la ma waaw gara bi. Mm-hmm. gars yi dina loolu loolu bi nga ko waxee toog nañ ci ay yées yoo xam ne fan yi ci ginnaaw sàcc yi bari woon na fi station yi bari lakk nañ ko problème yi bari manifestation yi bari am ñoo xam ne dañ doon dugg ci magasin yi di sàcc ay téléphone jàmbur di dajji ay magasin jàmbur. may sa lii nga xamante ni tey lan mooy problème bi ba tax loolu am lan la. bon daa xam année. Mhm. su yàlla dafa wax année bi dina am. Mhm. kenn mënul lool man benn sëriñ mënul lool. allahu akbar. danga xam aduna ñaan kese moo mhm. baax ci dëkk bi. mi ngi ñaan ne mais ba léegi ñu ñaan. allahu akbar. bu kenn toog lu sama yoon lu sama yoon. lu sunu yoon la. bu baax lool la wax ma ennemi. Mhm. jaaykat yi doog dina am xaalis bu bare. allahu akbar dinañ dina jàpp jaaykatu eh, bu bare. allahu akbar ma ne année dina am xaalis année bi gars dina jàpp sàcc lu bare. allahu bi ma ne jaaykati dina am xaalis gars dina jàpp jaaykati bi. allahu akbar ma ne année bi. Mhm. jigéen moo ko moom. année bi su jigéen da nga sa bopp. nga biir soo bëggu ko yàq doo ko jigéen ku amul doom année bi yàlla xam na incha allah rabbi yàlla dina def yéen amul doom. année jigéen moo moom. même nit soo ubbi seen ta benn société. Uh-huh. soo bugg dina dox. Uh-huh. nga wuti benn jigéen teg ko foofu. allahu akbar man maa la wax année bi dina nekk ci yow. allahu akbar. si ngeen comprendre. bu baax. après dina jóge foofu. Uh-huh. ñëw ci affaire Sonko. affaire Sonko. Macky Sall. Ah, ah. Depuis le problème de Macky Sall, et Songo n'est pas venu, mmh. j'ai Songo, fais attention à ton entourage. Entourage entourage Ousmane Sonko. Oui. Mhm. ma ne bu ñuul yëpp du mbuus. mais sa olof boobu dégguma ko de. mbuus bu ñuul yëpp du mbuus bu ñuul. allahu akbar. mbuus bu weex yëpp du bu weex. allahu akbar mbuus bu xonq yëpp mbuus bu xonq allahu akbar nit mun naa retanaak tey mhm. na ci biir xol mhm. yàlla moo ko xam yàlla moo xam benn conseil mhm. ma bugg jox Ousmane Sonko nga wax ko doomam moo wax arakam moo wax mbokkam moo wax su def dafa bugg génne dem def manifestation bugguma nag taxawal ci oto bum taxawati ci oto allahu akbar Ousmane Sonko loolu de yaa ko dégg li nga xamante ni grand Meissa wax na ko nee na manifestation bu amatee yow bul taxawati ci kaw oto loolu message la boo xam ne mu ngi la koy dékkal na nga xam boobaa nit dafa la bugg moment boobu danga nga moytu sa bopp allahu akbar parce que yoo xamatu kan dafa la bugg nga xamatul kan bugg la allahu ko ñaan yàlla yàlla def affaire yëpp dina sot ci ndox uh-huh. jàmm ñu ngi ci dëkk bi uh-huh. ma ngi wax Macky Sall tam uh-huh. benn jour ma ne Macky yaa ngi daw sa oto avant nga dugg ci oto nga remarqué sa oto bu baax yaa ngi yaa ngi waxoon nga ko lu yàgg ci ginnaaw. maa ngi ñëw encore. su Macky Sall. Mm-hmm. da xam da nga def voyage. Mm-hmm. sans voyage. Mm-hmm. naa def cinquante naa bàyyi cinquante. Allahu akbar. est-ce que bu baax a baax may sa yow daf lay déglu. nga wax ko Macky Sall. incha allahu rabi. dafa def benn dafa war a nekk ko Sénégal. Mhm. mun na nekk ko extérieur. Mhm. mais dina moytu boppam. ko akbar loolu nga wax léegi doo ko waxaat tuuti français bu ko defee léegi ñoom ñu mën a comprendre bu baax a baax ñu nekk ci biir état bi. je dis tu vas dire à mhm. de Sidi Mboup et de Anna fier être malien sénégalais africain. petit frère de Sokhna Kia Aïdarambou. Mhm. J'ai dit et je répète, mhm. Magui, si tu veux faire n'importe quel rayon, fais attention à toi. Mhm. Cette année, si tu dois faire 10 voyages, il faut faire 5 voyages, tu laisses voyages. Magui, il faut faire rayon, tu vas écouter toute ton population. posées en table. Les 100 ne peuvent pas régler un pays. <laughs> Je t'ai toujours dit et je répète, je sais pas si mon judo arrive là-bas. <laughs> Maki, il faut écouter toujours tes enfants et tes frères. Ça me ferait plaisir. Rester en table, poser, écouter ton peuple C'est ça qui est bien dans la vie. Je répète encore, Maki, si tu veux faire 10 voyages, il faut faire 5, il si tu veux sortir encore pour faire manifestation, ou bien aller quelque part, ou bien rencontrer des gens, ne t'arrête plus en haut de la voiture. Si tu n'as pas fait attention, Un jour viendra, tu vas trouver un coup de poing ou un banquier. Allah Akbar. Je te dis et je répète. C'est pas vrai. Ma vie, cette année, uh -huh. y aura fit avant l'élection. Allah Akbar. Il faut bien écrire et déposer que Maïka m'a dit. Allah Akbar. Dans ton y aura fit. Sonko, mhm. avant élection, mhm. dans ton entourage, il y aura très attention. Il faut pas renvoyer tout le monde. Mhm. Il faut pas accepter tout le monde. Le problème, c'est quoi Mati, c'est quelqu'un qui est béni. Songo, c'est quelqu'un qui est béni. C'est pas facile. J'ai dit et je répète. on est dans les carèmes, il faut essayer d'aller aux prisons, voir les gens qui sont là-bas, qui sont fins, qui n'ont qu'à faire ce que tu peux Premier ministre, mhm. il faut aller aux prisons, regarder les gens qui sont en prison, qui n'ont pas, les dossiers qui n'ont pas encore pris, vous n'avez qu'à faire à cause carèmes, ils n'ont qu'à prendre les dossiers en main. chef de quartier, mmh. n'a qu'à en prison, voir les prisonniers, les manœuvres qui y sont. Ceux qui sont malades, on n'a qu'à essayer de soigner. Ceux qui sont faibles, on n'a qu'à de faire blanc en prison. Vous n'avez qu'à à cause des carême. Les gens que vous pouvez laisser, vous n'avez qu'à de problème. Les gens que vous ne pouvez laisser, vous n'avez qu'à de aider à cause du carême. Maki, il faut essayer de voir ton entourage Nous n'a qu'à faire un don à l'hôpital, les gens qui sont malades, qui n'ont pas les moyens. À cause des carèmes, tu n'as qu'à faire ce que tu peux mhm. fais, mais fais ce que tu peux faire. Maki, il faut essayer de voir les militaires qui sont morts, leurs enfants qui sont là-bas, qui n'ont pas les moyens, leurs femmes qui sont là-bas, qui n'ont pas les moyens. Il faut faire à cause des carèmes, la fête arrive, voir leurs enfants et voir leurs parents. Il faut voir les militaires qui sont blessés, qui ne peuvent plus être militaires, ils sont déjà retraités. Il faut voir ce que tu peux faire pour eux. Maki, il faut descendre dans les pays, tu vois les gens qui sont souffrent. À cause de la fête, que leurs papas n'ont pas là, que mhm. leurs mamans qui n'ont pas là. Mhm. Ou bien les gens, même leurs papas qui n'ont pas là, n'ont pas là, qui n'ont qu'à essayer de faire des pour eux à cause des carême. Marc, si tu veux que le pays n'a qu'à être stable, il faut faire sacrifice. Tout le sacrifice, ce n'est pas mouton. Uh -huh. Tout uh-huh. ce n'est pas cola. Uh-huh. Et regardez, les gens qui ont besoin de nourriture extérieure et dans ton peuple, il faut essayer d'aider tout le monde. Uh uh-huh. -huh. regardez, dans les villages, les gens qui n'ont pas même les moyens pour manger, Marquis, il faut essayer de donner sac de riz, il faut essayer de donner l'argent. Je te le même tu n'es pas devenu président, on va te protéger. Ce n'est pas moi qui sais tous les gens qui sont les moyens. Allah qui n'ont pas les moyens à cause des carèmes. Allah c'est le jour des pardonnables. Allah c'est un jour que Dieu a déjà béni. Je veux que tous les Sénégalais mhm. il y a les moyens. Ils n'ont gens que leur papa n'ont ou leur maman n'est pas là. On essayer de faire aide. Maki, regardez bien dans ton entourage les gens qui sont fins et qui descendent la nuit, qui, qui partagent des sacs de riz même pas qu'ils vont savoir que c'est toi. Je vais te dire une question. Uh-huh. y avait un monsieur. Uh-huh. Il, était, il avait beaucoup d'argent. Uh il ne veut que les gens des quartiers sachent que c'est qui a l'argent. Uh-huh. Mais tout le monde sait qu'il a l'argent. Il est parti chez le vendeur de moutons. Uh-huh. Il dit que chaque jour, les gens viennent payer moutons chez toi combien Il dit, il y qui viennent payer 1000 francs, il y qui viennent payer 200, il y a qui viennent payer 500. Il dit, jusqu'à, je vais mourir. Il faut le donner viande gratuite. moi. y a un aussi, il vend du riz. Il dit que chaque jour, il faut donner du riz à les populations, mais ne dit pas que c'est moi. Mais ce qui est le problème, les vendeurs de moutons, tout le monde connaît son nom dans les quartiers, parce qu'il fait du bien. Les vendeurs du riz, tout le monde connaît son cadre dans les quartiers, parce qu'il fait du bien. Mais le problème, c'est quoi Le propriétaire de l'argent qui est décédé, personne n'a pas allé au funérailles. Parce qu'ils ont dit que lui, il ne donne pas l'argent à les gens alors qu'il avait l'argent. Mmh. Ça qui n'est pas devenu problème. Mais après le décès des propriétaires de l'argent, et il ne trouve plus viande, il ne trouve plus de riz. Mhm. Ah, ils ont dit pourquoi Ils disent celui qui est décédé, mhm. c'est qui avait pris engagement que mhm. je n'ai qu'à vous donner une et du celui qui paye chaque jour. C'est pour cela on dit, c'est pas tout le monde qui fait du bien, il se montrer. jullit yëpp. Mhm. dinaa def bu baax. dëgg la après woon suñu bopp. dëgg la. bu baax a baax. donc àdduna. Mhm. loo mënul def rek. Mhm. nga def ngir yàlla. dëgg la. dama bëgg Macky Sall. nga def ngir yàlla. nga def ngir sa yaay ak sa paap. nga xool. nit seen paap dafa gaañ. nit seen yaay dafa gaañ. nga dimbali ñu ci koor bi. allahu akbar. Macky Sall mhm. la ñaan encore mhm. nga def tout possible ci mhm. corps bi nga xool prisonniers ku am seen kayit nekku ci règle nga dimbale ñoom seen kayit dina nekk ci règle nga dimbale waa prison ñoom dina am lekk bu baax ci corps bi même si yoon nekku président yàlla dina la dimbale allahu akbar mais Macky avant élection sa entourage dina am futur foofu am na lu ndaw lu ma ci bëgg a laaj am na ñu bari ñu ne Macky sàll balaa élection yi est-ce que Sénégal du am coup d'état parce que problème yi am ni entourage yu Macky Sall est-ce que pare nañ instant yi pour jàppale Macky Sall. ma ne. waaw. coup d'état mun na nekk ci beneen année mais du année 2023. du nekk année 2023 bi. allahu akbar. mun na nekk. Mhm. Sénégal du am coup d'état. allahu akbar maa ngi ñaan yàlla. même su fekkee ne war na am. Mhm. bul yàlla def ko mhm. mhm. parce que damay dégg ñu ci bari boo waxee ñu warante ne Macky sàll bu ko gars yi coup d'état wul du fi jugee quel problème. ma ne. coup d'état yàlla moo gën a bare coup d'état yàlla moo gën jàkka coup d'état nit. dëgg naa dëgg dëgg naa dëgg su yàlla ne ne mhm. Macky doo def cinq secondes mhm. mun na ko def déedéet eh, si yàlla ne ne Macky Sall yow yaa nekk eh, président mhm. kan mun na ko def dara déedéet kenn mënu ko def dara kenn ku dee dina bare ku dund dina bare te du ñaan yàlla ci loolu wallahu akbar da nga xam dëgg la dogal yàlla kenn mu koy rëcc déedéet kan moo toog Macky Sall déedéet du ñun sénégalais waaw kan dafa bugg a jël du ñu ni Sénégalais. waaw mais est que ñu teg yéen ci loxo yàlla rek. dëgg naa dëgg. est que yéen comprendre. bu baax ñu dem suñu kii vote. Mm-hmm. su yàlla ne ne. Mm-hmm. Macky soo triché. Mm-hmm. yow dina jóge foofu dina jóge foofu rek. dëgg su yàlla ne ne. Macky soo triché wu. yow dina nekk candidat yow dina nekk candidat. dëgg la. mais man xam na élection bi dina métti. nga ni élection yi dina métti. grand na man. Uh-huh. même tey da nga ma surprise. dama laa surprise parce que surprise boobu noonu mooy yoon parce que li ñu fi fekk moo ñu yëm. voilà parce que da nga xam man. Mhm. du ma wax nii. Mhm. nii naa. dëgg la non non non. dëgg la man xam man loolu. allahu akbar. ou bien dama wóor du dem wóor ci dëkk bi. xam lu xew. dëgg la def interview. dëgg la man xam man loolu. dëgg la yow fi nga toog nga toog yàlla suñu borom di la woon lépp. avant tram de militaire bi dina ñëw. waaw man maa la wax. waaw ma ne xeex dafa commencé Sénégal. dëgg la ma ne ma ne ma ne commencé gul. dëgg ma ne dëkk yëpp. Uh-huh. adduna yëpp. Uh-huh. dans trois mois dinaa sentir. dëgg la même uh-huh. un mois encore Sénégal dafa commencé. est-ce que yaa ngi comprendre. bu ma bëgg wax rek. Sénégal dafa bari ay séeréer. waaw. sénégalais dafa bare borom xam-xam. Mhm. sénégalais dafa bare kilifa. Mhm. mais da nga xam. Mhm. ñun sénégalais. ñun di respecté suñu kilifa boo moo nekk problème ci Sénégal. allahu akbar. soo dugg ci internet. nga gis. sénégalais. mi ngi saaga seen kilifa. nekkoon kenn position. loolu baaxul. un Sénégal. Mhm. billaay soo dem ci beneen dëkk. Mhm. nga wax yu da nga jóge Sénégal. ngay mhm. dina wax yooyu nga ñaan ko. parce que lan ñoom dina wax yi ay Serigne Touba. ay Serigne Babacar Sy. ay dafa nekk. mais comment ça veut dire que nga nekk ci Sénégal. nga saaga sa kilifa. yow nekk ci extérieur. bon message. waaw parce que da nga xam. Mhm. ku am sa kilifa. Mhm. nit ku yàgg. Mhm. tànk yu sàmm sa borom sa mbokk yi. bul tàkka mbokku jàmbur. dëgg naa dëgg. tànk yu sànga sa yaay. bul tàkka yaay jàmbur. allahu akbar. tànk yu sànga sa paap. bul sànga paap jàmbur. macha allah lu mu dem. macha allah. conseil dama bugg jox sénégalais. ñu mooy ci suñu kilifa. soo am galaaj. soo bugg sa galaaj bi Uh-huh. billahi tallahi man maa la wax loolu soo uh-huh. saaga sa kilifa uh-huh. doo am gàllaaj macha allah yéen a dégg kàddu yi ci li nga xamante ni ah grand Meissa wax na ko tey grand sa tey duñ fi ñëw ba dem te duñ am loo xamante ni dañ la koy laaj grand sa am na benn affaire bu ma gis foofu noonu nga teg ko sa kanam loolu mel ni comme genre lu nekk ci mbuus nekk sunguf secret boobu noonu lan la ci loo xamante ne tey ji loo ci war a dimbale tey jii ci askanu senegal mais sa loolu noonu lan la. bon daa am suufu man am. Mhm. ay war a wane. Mhm. ak suufu wërsëg. su loolu la Sénégal yi moom ñëpp a ko soxla moom. numéro téléphone yaa ngi noonu ci écran bi xam naa ne kii di grand Meissa am na loo xamante ne kenn doon ko présenté numéro yaa ngi noonu 220 23 20 képp ko ci woo incha allahu rabbi di nga ko jot am na whatsapp am na appel.

loolu yëpp laa ko. allahu akbar bu baax a baax saabu daan ku wërsëg ak laamin ak car. yëgatil boppam boobu may sax. saabu boobu tam pour wërsëg ak car. allahu akbar boobu tam boobu la. bi allah bu baax a baax. da nga xam àdduna. jarootu nga dëgg la parce que. mu ko xam. naa ko. dëgg la da xam ban conseil dama bëgg jox rek. tuuti. dama bëgg dëkk bi dina stabiliser. stabiliser. dëkk bi. Mhm. avant dëkk bi dina nekk dëkk. Mhm. il faut que suñu waajur dina loxo. Mhm. mu ngi ñaan Macky Sall. dina xool waa réew mi. bu na. mu ngi ñaan Macky Sall. dina xool ay kilifa yi dafa nekk ci dëkk bi. su dafa may problème. dafa bare kilifa. nga dem ci nga wax kilifa waxal. Mhm. ak waa dëkk. kilifa yi dafa nekk mhm. mhm. bu baax. est-ce que yaa ngi comprendre. même ah. dina dem ci kilifa. nee na wax parce que lu que waa dëkk ginnaaw ñoom. mu ngi julli. wallaahu te wax. waa dëkk yi lii. defal lii. ñoom dina ko def. parce que lu tax man ñoom dina wax. ah ñun mi ngi julli ci ginnaaw kii ou bien ñun talibé kii la il faut que ñu déggu ko li mu wax mais da xam président soo faaloo kilifa faaloo kenn jour boobu da am problème waaw ku dina la dimbale de maa ngi ñaan Macky Sall chaque jour si dafa am problème dinaa jël oto dem ci kilifa yi wax ak kilifa yi kilifa yi dina wax ak waa dëkk macha allah bu baax a baax. et puis encore damaa gis benn vidéo. Mhm. benn jigéen. Mhm. xam ma benn chrétien moo ko jël xamal lan. Mhm. dem ak kooku. daa xam dafa am système chrétien. ñoom ay chrétien comme ay sëriñ bu baax si ñoom dafa jàpp sa doom. daa xam lavage de cerveau. fii ñoom dafara def lavage des cerveaux mhm. sama bopp du laa gis allahu akbar vidéo bi mi ngi sama téléphone allahu akbar mais dafa bare entre Lomé Bénin Ghana Cameroun foofu laa dafa mhm. loolu tamit deuxième partie bi incha allahu rabbi dinañ fi ñëwaat toogaat ñu gën a débat ci loolu nga xamante ni moom nga wax noonu incha allahu akbar bara boobu noonu tey secret bi nga xamante ni tey dañ koy may Sénégal danga koy may kër yi nga xamante ni tey bëgg nañu am xaalis tey ji dernier message bi dernier kàddu bi nga xamante ni tey ji tey da ko indi tey ji ci biir Sénégal tey ji lan ngay diggal Sénégal tey kenn ku ci nekk ak sarax bi nga xam ne tey moom la war a génne tey ci Sénégal pour Sénégal war a am jàmm. bon dana mhm. mhm. am mhm. am ci sa liggéey uh-huh. ku problème fi uh-huh. nga nekk uh-huh. nga wuti poudre fetal nga wut fetal poudre fetal waaw soo wuti poudre fetal nga dem ci benn côté nga def gas nga def poudre fetal bi ci foofu nga jël ndox nga ñaan saa soxla yëpp nga def ko ci ndox bi mais bu ñu bi ci biti mm. bu baax a baax a baax. après nga jël suuf nga jël ko. Mhm. tëj ni ndox bi. Mhm. soo ko def ginnaaw yàlla. Mhm. avant taw dina ñëw. dina yàq de tàng fetal bi talu. soo ko dundee. allahu akbar ginnaaw yàlla. allahu akbar. yaa ngi comprendre bu baax a baax. chaque jour loolu la wax. ma ne sénégalais nga def suuf foofu nga ñaan. ñaan lu ne da nga mun si sa àdduna. def ko. ci sa bopp. bu baax soo ñaan ci sa bopp. Mhm. nga ñaan ci waa dëkk bi. Mhm. yaa ngi bu baax parce que soo bëgg sa ñaan dinaa jàpp. ñu mhm. ñaan tout kese. dëgg laa dëgg. yaa ngi comprendre. nga ñaan àdduna yëpp après nga ñaan ci sa bopp. boobaa boobu yàlla dina la dimbali. bu baax gi baax keneen yàlla dina jàpp sa ñaan. man tam man ñaan ba léegi. yàlla indi jàmm ci jàmm kese moo baax a dëkk yi. allahu akbar. xeex. Mhm. jarul dara. dëgg la. xuloo. Mhm. dara. Mhm. dara ngi dégg itam ne ne benn mbir. dafa tax beneen jabar. dëppoo tam dafa indi ay coow. Ada Fass. kooku beneen client ta wax na ma. est-ce boobu a waroon coow. ma ne ah man gisuma coow ci boobu. nga ne te te ñu bëri ne leen dafa takk jabar première fois deuxième fois mu ñëw takkaat jabar plus de un mois. ma waaw. est-ce que yéen dafa xam lu tax dafa ko takk. loolu nag sénégalais bari xamuñu ko grand may sax. ah est-ce que yéen dafa xam su nga ne benn sëriñ ne nga takk ñaan beneen jabaram ko taw si yokk. dégg naa dëgg. kenn xamul loolu. dëgg la. beneen encore. soo ne xale. boobu nga war a jabar du parce que demam xaalis ma tak jabar de mm-hmm. mm-hmm. xam ma cause moom ak gars yi mm-hmm. ñoom dina wax pour que il faut liggéey mi ngi def bul yàq boobu moo tax ñun dafa meer ci moom mun na nekk boobu mais ci islam ak mbëri ban gën a moo ban ma gën a islam ah lu islam ne ne nga tag jabar ba kat waaw mais léegi. ndeysaan da nga xam benn eh, na la wax benn affaire. Uh-huh. ku am benn jigéen. Uh-huh. jigéen dina jabar. waaw uh-huh. yow amul garantie de. ku am benn jabar amoo garantie. non non non kon nag kon nag kot nag sama nijaay kon wuti leen yeneen ñaareel. non non non suñu moom ku ci am benn jabar wuti jël benn jabar. même ci alquran. waaw billahi ku am benn jabar. garantie amul garantie. parce que bu la meree rek. donc du question mere. allahu akbar. yàlla nee na. boobu. soo mun takk benn jabar nga juri mhm. nga ñaan moom mhm. soo soo mun mhm. soo ñemew waaw bul takk jabar mais nga juri nga ñaan moom mais bul foofu allahu akbar léegi ñaata góor dafa am ay far ci biti bari na mais ëpp na quatre far dëgg la ëpp na cinq far dëgg la mais avant nga dem yàgg sa xaalis ci sa far waaw soo takk benn yoon waaw ban moo gën a baax waaw nga takk moo gën a baax ça fait un. waaw deuxièmement nga am jabar. Mhm. yaa ngi dox ci biti. Mhm. nga takk jabar ban ban ma a baax. waaw nga takk jabar. man damaa foog na loolu ma gën a baax. allah akbar bon message. message bu am sens nga wax. danga xam àdduna. yàlla ne ne. soo gis jigéen. Mhm. saa jëkkër dafa takk ñaareel. yow yaa baax. dëgg la. su fekkee yow baaxul. waaw ah. billaay du takk ñaareel. nga ne képp koo gis sa jëkkër. Euh, sa jabar baax da nga takk ñaareel. waaw bu sa takk bu sa jëkkër takkul ñaareel rek yow baaxoo. waaw parce que laajal ma lu tax. loolu laa bëgg a xam. voilà normalement. waaw jigéen. Mhm. yàlla na ne nga sa jëkkër dina jël bakkaat. Mhm. léegi ñaata jigéen moo nekk ci dëkk bi. Mhm. bari na. bari na de. ñu bàyyi moom su jur dem doom yëpp dafa nekk jigéen. kenn ku ne nee na ma takk benn. Mhm. est ce que ñoom seen doom dina takk dina am jëkkër. déedéet. te du sa am jëkkër. dëgg la est ce que yaa ngi comprendre. dëgg la parce que da nga mhm. yàlla nee mhm. ñu takk jigéen lu bare. est ce que am cause. yàlla nee ne avant nga takk ñaar. il faut que nga nekk juste. allah akbar. kenn ku ne soo takk ñaar. lu doo respecté sa règle. dëgg la billaay taalaay bu lu dee. dëgg bu su soo dee. yàlla dina la dugg ci safara. wallaahu akbar. est-ce que yaa ngi dégg la bu baax grand mooy mhm. sax. Eh, ah, eh, su premier bi dafa d'accord. waaw man xam lu tax dina mer. dëgg la. ah. parce que premier bi tam. waaw bañ. dëgg jour boobu gars dina ko takk moom. Mhm. nee dina takk takk. dëgg ah jour boobu yóbbaale ko. dëgg la mais jour boobu dafa bëgg takk beneen yow nee na du ko takk. dëgg la ça c'est pas normal. non non moom c'est pas normal dëgg la. à la Ada Fass. Ada Fass. waaw. nga nekk nga jubóot sa jabar yi. dëgg la Ada mm, Fass. bul wax kii mm-hmm. bul wax kii mm-hmm. soo bëgg a yére. soo bëgg a dala. Mm-hmm. ko ñaar dala. soo bëgg jox xaalis ñoom. nga woo ñaar yëpp. nga jox kenn ku ne si ngeen comprendre. dégg na dëgg. soo ñëw mhm. soo xam da nga nekk ci premier bi mhm. avant nga dem ci premier bi nga woo sa ñaari jabar yëpp nga waxtaan ak ñoom mhm. soo pare waxtaan ak moom soo bugg dem fenn fanaan ko nga dem fanaan ko bul nangu kenn dugg sa diggante ak sa jabar dëgg la bon message si yaa ngi comprendre allahu akbar waaw soo bugg sa àdduna dina baax bul foo ak jigéen soo buggu tam sax aduna yi mhm. bu bare nee na am ma xaalis mhm. sama xaalis yàq na mhm. lu yàlla de moom la ñoom ci seen bopp la parce que yàlla nee na soo takk doom jàmbur indi ko sa kër encore doo ko respecté doo xaalis doo def dara yàlla nee man maa la dund dinaa jël sa wërsëg jox ko kooku allah akbar bon message. dernier kàddu yi grand Meissa. non dernier kàddu ba léegi de man ngi ñaan yàlla la dina am. Mhm. stabilisation. Mhm. c'est ça que je veux répéter. Mhm. je veux saluer tout le la paix. dans notre pays. Sénégal Mali Côte d'Ivoire. Burkina. partout en tout. d'accord. tu dans la vie. Si tu dis que je pas dedans, mmh. il faut savoir que papa est dedans, que ta maman est dedans, que ton frère est dedans. Mmh. Afrique, tous ces mêmes choses. Afrique, tous ces mêmes filles. Mmh. Moi, j'ai pris à dire la paix au Sénégal. Mhm. C'est ça que j'aime. Et j'ai salué tous les pays mhm. et toutes les populations. Mhm. Et Dieu n'attend nous protéger. Et Dieu n'attend nous donner beaucoup de des politiques, la table. ah lii de tey lañ leen indiloon fi nga xamante ni tey jii mooy ah, ci émission bi nga xam ne mu di faj sa ñu seet si woon ki nga xamante ni mu di Grand Meissa tey wax na lu rafet tey ci li nga xamante ni mooy ci biir Sénégal waaye sarax yi nga xamante ni maanaam da leen koy digal da koy topp ngeen koy def parce que yaakaar naa ne jàmm. jàmm rek ci la jàmm xaj kon tey dañu dañuy amaat tey ji ci beneen dox di jege incha allahu rabbi ci li nga xamante ni tey ji ah mooy émission faj sa jàngoro di leen dox di nga daje incha allahu rabbi ci diggante Maysa ak man mi nga xamante ni tey maa leen seet soon fi nga xamante ni tey ji moo di ci biir cité Aline Sow numéro bàyyi noonu képp koo xamante ni pare nga incha allahu rabbi ngir bëgg a jëflante ak moom ba nga jëflante ak ñoom am na nag koy commenté ci suuf benn supporteru dafa bëgg ñu indi Ada Fass pour nga jàppale ko ci ay combat pour ko may victoire dégg nga loolu kon na alhamdulilah ci barkeb say xi fàddilu mi yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb say xi fàddilu mi yàlla dolli ay maqaama yàlla. Bienvenue sur Salam Vision. Thank you.